Wassare TV dañuy wax ak yow. waaw bu leen siyaaraatee eh, euh, financement bi ñu ngi financé tey jii 17 euh, groupement euh, te tey ñu ci suñ deuxième financement te am na itam yoo xam ne tamit 12 yoo xam ne semaine bi du ñëw ci lañ war a financé yoo xam ne semaine bi lañ ko war indiwaat ndax dafa amoon retard. nag dañuy femme développement dañuy femme développement boo xam ne développement dañoo ñor. liggéey suñ askan tamit danoo ñor ndax tamit boo gisee fi liñ fi exposé nii ci table bi ñoo ko liggéey ak suñu loxo ndax tamit na Dieynaba Diouf mi taxaw moom ma njëkk a jàngal euh, savonnerie jàngal ma eau de savel jàngal ma koko jinjeer jàngal ma madaar ak tamit jus euh, jus jus la ma jàngal ak cuub kon nag ñun mënuñu koo fay defal nañ fi sànqal ci exposé bi defal nañ sànqal defar nañ tamit caagri defar tamit cere defar tamit sànqalu euh, mboq defar tamit koko euh, koko jinjeer defar koko gerte defar tamit savonnerie dafa saabu fóotukaay dafa saa saabu sangukaay yi nga xam ni am na saabu mem nepp am saabu xay am saabu tamit mbër am saabu xam boo xam ne turkiment lañ turkiment lañ koy wax am tamit savon liquide boo xam ne macha allah foo ko euh, fóote mu set karo yoo ko def mu set am tamit savon am tamit eau de javel exposé nañu eau de javel ak tamaate bi nga xam ne ñun nag ay liggéey kay lan ay baykat lañu. waaw financement yi nag ay weer lañ koy fay le 15 bu nekk dañuy fay groupement bu ne day fay ba mat 10 mois. su matee 10 mois euh, comme ni ñu defee bi passé ba matee 9 mois danoo solde benn bi moo tax tey ji ñu waroon a fay ñu am financement waaw fi ne nag ndam lañ bëgg ndax tamit ku la jox xaalis euh, jàngal na la tamit nga dem liggéey développement ndax dama leen gëm te ko jox xaalis tey doo nelaw ndax ci nga gis ñii ñu ngi daan seen doole ñii ngi ci tool yi ñi ngi ci dem mm, commerce ñi ngi commerçant lépp ñoo ngi koy def ndax bëgg rek daan seen doole ba bu la 15 jotee versement yi duñ ci am benn problème macha allah ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu kenn ku ne yaa ngi ci waar wi. kër jëm euh, kër jëm rek yëmul kër jëm ndax boo nee département Thiès defe naa nag umb nañu lépp. waaw ndax waa Ndioukhane a ngi fi waa Kër Baara Kayre waa nooto Jabaas waa Anen ñu bëri ñu ngi ci ci ci ci waa Thiès ñu ngi ci ci financement bi kon nag boo nee département bi rek ëmb na lu bëree bari du commune nooto rek département lan wax ëmb na lu bëree bari macha allah. waaw ñu ngi lay ni seen laa tudd nekk présidente réseau Confat national euh, ñëwoon fii tey Kër Jëmb ci membre yi ma invité muy Marie Diouf bi nekk Confat département de Thiès ak euh, Mané Ndoye loolu moo fii samay tànk waaw solo biñ ci am rek mooy ñëw nekk seen kanam nekk seen gannaaw encouragé leen ci liggéey bi nga xamante ne. moom lañ leen tette te ñu dem ba man ñu ci lool ndax dañuy wax ne ndongo li raw na sëriñ bi macha allah di leen wax ne lii ñu nekk mooy li ñu soxla muy développement def transformation def valeur ajoutée nekk ci mbéy mi nekk ci sàmm bi nekk ci centrale d'achat à domicile ba nga xam ne commerce réew mi day nekk ci loxo jigéen ñi loolu moo gën a tax ñu leen di gunge ci confat bi bëgg ñoom ñu yoree seen commerce di wuti di indi di jox seen i jigéen loolu la lay taxawaayu Comfat au niveau national di leen jàppale aussi ci lépp lu koom jóge ci jigéen ñi rek war a delluwaat ci suñu biir muy wax dërëm bi génnul gaal gi di leen gunge nag ci benn concept bu ñuy wax votre entreprise dans votre poche nga xam ne fépp foo nekk ak foo mën a ubbi bitik dinañ la installer logiciel boo xam ne fa nga nekk bu dee bitig baa ngi France sax yow fii Sénégal mën nga yore euh, concept bi di ci liggéey di xam ne bitig biy dugal ak li muy indi ci loolu lañ leen di gunge te macha allah ñaar ñi mu seq moom fi mu nekk nii ñoo maay seen taalibe waaw macha allah. waaw dañuy jóge commune bu Touba ñëw fii di jàppale suñu naataango comme femme leader euh, Mané Ndoye ànd ko ak euh, membre association yi nga xam ne yëpp tey teew nañu fi mu nekk euh, COMFAT euh, département bu Thiès ak COMFAT national ñu ànd liggéey boobu noonu ndax ci suñuy kàddu dañuy wax ci ndigalu présidente national ak régional mu nekk jataayu tey boo xam ne dañ fi dajale ay jigéen pour yokk seen koom-koom yokkal leen li nga xamante ni mooy defal leen ay financement jàppale leen gunge leen loolu mooy objectif bi nga xam ne tey jii taxawal nañ ko fii ci kër Jëmb Ndiaye ànd ko ak femme leader Mané Ndoye waaw boutique boobu dañ ko yëkkati initiative la boo xam ne partenaire bi bi ñu koy yëkkati dañ ko def ngir dooleel jigéen ñi gunge leen ci autonomisation ndax dañuy wax ne daanaka nit ki jàngal ko may ko jën jàngal ko nu muy nappee moo ko gën ndax dañuy gis ne boutique bi ñu ngi koy créer ci 50 membres 50 membres yooyu kenn ku ci nekk mën na gis boppam ci boutique bi li ñuy wax panier ménagère maanaam da nga lépp loo xam ne da nga koy soxla ci sa biir kër rek dafay nekk ci boutique bi par weer bu dee bu nekk mën nga ko am ndax boutique bi dina am ceeb dina am dëwlin suukar ak euh, benn frigo boo xamante ne dina am yàpp am jën am ganaar nen lépp loo xam ne rek ñun jigéen dañ koy soxla ci suñu biir kër rek boutique boobu dañuy am yéene mébét pour mu jigéen sa jigéen ñi ba kenn ku ci nekk li nga xam tay dafa doon doon bénéfice yi nga xam dañ koy guenné diko ko yóbbu si ñu mën ko duggal ci seen biir ndax 50 personnes yoy bu kenn ku nekk amé 50 000 francs par par mois ci sa biir kër muy sa dépense wala 100 000 francs ba 200 000 boutique bi di nga am euh, intérêt ci boutique bi pour mu mën la ko jox nga diko fay nank nank kon yaakaar na né lolu mooy li nga xamante ne tey association bi taxawal na ko fii ci kër Jëmb Ndiaye mardi prochain ñu war leen indil li nga xam ne mooy seen denrée alimentaire yi. waaw boutique yooyu ku ci bëgg a bokk da ngay jënd carte de membre 2000 euh, francs carte de membre bi soo ko jëndee mooy identification bi tax ñu xam ne yow bokk nga ci association bi nga xamante ne tey centrale d'achat yi dañ koo dañ ko teg pour fépp fu jigéen nekk ci Sénégal rek dañuy mébét egg ba ci yow defal la ko parce que loolu ñu ngi ci jël benn objectif la ñu soxla mooy que ne comme ni ma ko waxee rek autonomisation bi li ñuy wax ne jàngal nit ki euh, naka lañ koy waxee may ko jën da nga koy jàngal d'abord ni muy nappee ba bu ëllëgee bu la gisul dana mën a dem liggéeyal boppam. kon ñun vision boobu la ñu am que ne jëgale jëmale jigéen ñi kanam waaye yokkal leen seen koom-koom. waaye saafara li nga xamante ne mooy seen jafe-jafe ndax tey mën nañ dem ba benn moment ceeb dafay jafe dëwlin dafay jafe suukar dafay jafe te toujours bu bitig bi jigéen jigéñee leen te di ñëw ci anam yi ñu ko soxlaa yaakaar nañ ne rupture du am ci marchandise yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy soxla ci seen biir kër yi. tey ñëw nañ kër jëmb ñëw nañ fi 2023 euh, fii euh, ci mois de novembre indiloon leen ay formation muy cuub tentir ma daal eau seven javel Euh, finance leen 35 millions ñu ñëwaat fii euh, ci janvier deuxième édition fekk fii présidente Mané Ndoye muy présidente taxaw njaboot national amit waa tey ay réseau ñoo fi ñëw ay présidente ñi ngi jóge ci dëkk dëkkaat yi ñuy wër cees yëpp macha allah yéen suba ba ngoon jot di jot si seen financement. waaw ñoom euh, yor nañ ay tool fii GIE bi am na tool ñooy béy tomate bi ñu ci lancé femmes yi nga xam ne ñoom ñoo yor groupement yi. comme ni koy defee rek seen cotisation ak seen partenariat IMSEP ñu gën a yokk seen koom-koom seen mbéy. waaw euh, kii indi daaw euh, trente trente cinq millions bu ñu waatee ren xam nga nit ñi yokk nañu parce que comme ñu ngi joxe nit ñi pareegu ñu xam nga ñu doy mais xam naa ñu ngi ci quarante moom instant soo ba léegi ñu ci quarante millions te ñu mais fekk parewuñ ñu mën a xam fu ñu toll. waa jigéen ñi fay bi yomb na trop ndax bu ñu la joxee cent mille yaa ngi fay onze mille. seulement bu dee bi cent vingt mille la. nga fekk ko pendant nga xam ne neex na ci ñoom ba dañoo solde sax dañoo solde 8 mois lañu pare fay ñoo jëlaat deuxième édition ñu ngi leen jox 1 million 500. Diourouba